ne ci ndaje bi nga xam ne dañ ci doon amal ab bilan ñeel seen doxalinu ci atum 2023 bi syndicat bi ñeel enseignant du moyen secondaire di SAEMS dañu rek delluwaat ci xeex mi. ñu ne nag kon bu nu lee xaymaa loolu yëpp ba génn ci lël bii nga xam ne ci la ñu ne daañu dem ñu jébbal ministre de la fonction publique benn bataaxalu yëglu bataaxalu yëglu boobu nag dañu koy defandoo ñun ak sunu naataango yu kisam si ngir mën a tàmbale nag xeex bi ndax jàpp nañ ne nag ah xaar xaar xaar ba xaddi li ci des mooy maanaam def bras de ñu ne nguur gi ndax mu mën a jëmbal parce que ñëpp xam nañ ne ñu ngi jëm ci année électorale année électorale boobu bu ñu teelul yëglu am nu ñu wanee suñu bopp jàpp nañ ne dana am yéex-yéex yu muy indi. dogal boobe nag li ko gën a waral mooy gàkk-gàkk yi nga xam ne seetlu nañ ko ci doxalinu nguur gi nga xam ne signé woon na ay accord waaye respecté wu ko. ñu seetu ne ñoom dañu jël lépp lu jëm ci wàllu carrière jëm ci wàllu statut ak ci jëm ci wàllu social ñu tege ko nële ni yàkk bu naqari nekk di lijjanti yeneen i mbir ñu jàpp nag ne loolu du jëmale liggéeykat yi kanam du jëmale jàngalekat yi kanam du jëmale sunu lekkool bi kanam. donte année 2024 bi lee atum élection la teewul syndicat bi moom naru ñu bàyyeeku benn yoon wala sax di sukkandiku ci ay promesse politique li ñu nar kay mooy wéyal seen xeex ngir gën a ñoŋal carrièreu liggéeykat yi